ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal Mansour Ndiaye nekk membre commission communication bu Alliance nationale pour la cause palestinienne nekk tamit responsable communication bu mouvement des jeunes associés euh, musulmans ñu fas yéene waxtaane lépp lu soxal actualité politique ak euh, sociale bi nga xamante ni euh, moo marqué euh, semaine bile Mansour Ndiaye maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm soxna Ndeye Comba ñu ngi lay fay bu baax a baax di am mbégte di uyu sa oote bi hmm. di ñaan yàlla subhaanahu wa lépp lu ñu fi waxtaane yàlla na doon njariñ si réew mi waaw laaj bu njëkk bu ma lay laaj Mansour njaay moom mooy euh, ci wàllum cause palestinienne bi la ñuy njëkkee lan moo leen si euh, yóbbu woon exactement ba ngeen jóg di xeexal Palestine te moonte day yéen a ngi fii senegal waa Palestine suñu diggante ak ñoom nekkul diggante boo xamante rek entre ay peuple waaye li si jiitu moom mooy diine. ndax jullit bi kii ko gën a jige si xolam mooy mbokku jullitam kon islam boobu la ñuy jiital sax si mbokkoo si wàllum deret moo tax ndef Palestine la fay xew dafay interpeller jullit ñëpp surtout il s'agit de la mosquée al aqsa bi nga xamante ne moom la yàlla tudda si al quranul karim et que chaque jour ñuy gis violation yi nga xamante ne moom na fa Israël di def loolu nag dafay imposer bépp jullit boo xamante ne am na yëg-yëg wala bépp jullit boo xamante ne comprendre na message yonent bi bi nga xamante ne nee na Euh, jullit bu xëy te itte woowul mbiri jullit ñi bokkul si ñun kon ñun dañu bëgg a bokk si lislaam bëgg a bokk si njabootu yonent bi sallallahu alayhi hmm. moo tax lépp lu ñu xiirtal rek ñun dañuy fas yéene woy si loolu loolu moom moo waral ñuy yëngu si cause Palestine parce que cause diine la avant muy nekk cause politique wala cause leneen mais géej nañ leen a dégg ci wàllum euh, Palestine li ngeen si bëggoon da ngeen ko am wala lan fan ngeen tollu ci xeex bi en fait bon xeex la boo xamante ne yàgg na depuis 1947 bi ñu installé euh, illégalement état d'Israël ci suufu Palestine euh, léegi nag ñun li ñuy def dañ koy def te yàlla rek tax dañ koy def parce que dañuy jëfee li nga xamante ne moom la ñu suñu diina may. Mm-hmm. résultat bi nag mën na bañ a nekk lu immédiat waaye de toute façon ñun ñu ngi ci yoon wi te duñu wàcc yoon woowu moomu tant que amuñu li nga xamante ne moom la ñu bëgg muy libération du peuple palestinien waaye itam taxawal état Palestine. et si frontière 1967 avec comme jérusalem léegi léegi ci ci ci ci xeex boobu maanaam yéen euh, naka ngeen koy defee exactement parce que li ñu leen di dégg ci coow bariwul c'est vrai que bu Israël euh, commencé di euh, attaquer Palestine souvent dinañ gis ngeen organiser ay marche pour wax ne fitna googulee nañ ko daal di dakkal mais su paasee loolu duñ leen di dégg lu bari kon yéen seen xeex lan mooy stratégie exactement bu weesoo parfois marché yi ñuy gis ngeen organiser ko bon suñu xeex yemul rek euh, si wàllu marche xëy na peut-être loolu moo gën a fees tey dafay nekk ay mbir yoo xamante ne lu saisonnier la waaye am na yeneen xeeti xeex yoo xamante ne ñu ngi koy def si di mobiliser askan wi waaye itam di leen xamal li nga xamante ne moom mooy cause Palestine à travers ay forum yoo xamante ne dañ koy def fii si biir réew mi ak bitim réew. Mhm. waaye itam di former jeunesse bi di leen xamal di leen conscientiser aussi si cause bi loolu nag xëy na euh, moyens yi ñu liggéeyee. peut am na si yoo xamante ne jàppandiwul ndax doole ji tolluwul foofu si wàllum koom xëy na moom moo tax sax du ñu dégg lu bare bare bari mais lu si bari ñu ngi koy liggéey waaye itam jar nañu fàttali ne ñun suñu liggéey dañ ko sof si li nga xamante ne moom la état Sénégal di def parce que bu ñu fàtte ne Sénégal position officielle bi mu am si cause palestine cause palestinienne position la boo xamante ne bu honorifique la en plus Sénégal depuis 1975 moom moo jiite comité bi nga xamante ne mooy saytu wàllum droit palestinien yi si ONU euh, depuis 1975 te duñ fàtte itam Sénégal moom mooy premier pays bu jox Yasser Arafat passeport diplomatique pour faciliter mm-hmm. ses voyages si bitim réew. dëgg naka noonu aussi Sénégal bokk na si ñi créé li nga xamante ne moom mooy OCI waaye tamit di taxaw di euh, défendre cause palestinienne si fépp si concert international et africaine ak si biir réew mi fii donc ñun nag. Euh, ñu ngi siy liggéey bu baax doon si taay lool xëy na nag euh, liggéey bi comme ni nga ko waxee médiatiser wuñu ko lool wala tamit xëy na média bi tamit rôle bi mu waroon joué si cause palestinienne joué ko dëgg-dëgg si di ko vulgariser di ko xamal askan wi donc ñun nag ñu ngi wàll woowu ñun feete woon nañ ko ñu ngi siy liggéey euh, doole ji demeegul lool mais gëm nañ ne daal Sénégal fii ñu toll nii si wàllum cause palestinienne si commencé ko xam ambassadeur bi nga xamante ne mission am bu yàggul joué si lu bari ànd si ak ñun ñu siy liggéey. te incha allah si yoon woowu la nekk li si sax ba li nga xamante ne moom mooy askan wi gën a xam la lool mooy cause. Euh, Mansour Ndiaye ma lay laaj ci biir alliance pour la cause palestinienne alliance nationale bi euh, ñan ñoo ci bokk yan xeetu nit yan organisation exactement. waaw alliance nationale pour la cause palestinienne bokk na mouvement bu ñuy wax JIR muy jamaatu Ibadur Rahman. bokk na si aussi mouvement bu ñuy wax rassemblement islamique du Sénégal bokk na si lu ñuy wax amicale des cadres musulmans du Sénégal ak forum islamique pour le pour la pour l'éducation et le développement jeunes associés musulmans de Yoff ak euh, yeneen mouvement bu mel ni mouvement Al Falah donc mouvement yu bëri si nga xamante ni mouvement islam yi ñu si bëri ñu ngi si biir di si liggéey ak ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. si mhm. fan yi nga xamante ne yàggul créé nañ sax beneen boo xamante ne. Euh, dafa ëmb mouvement islamique yi ak parti politique yi ak mouvement société civile te lépp li ko waral moom muy cause Palestine boobu mu ngi tudd euh, la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne biñ ko créé léegi yàggul lool mm-hmm. mais xam naa feex ay fan yu néew ñu dégg incha allah voilà tey jii ma njëkk euh, laaj wala ma si teg euh, jëm ci benn question d'actualité en tant que jeune am benn euh, problème muy problème mu immigration clandestine gis nga saa sune ne muy faat ci ay bakkan sensibilisation bi nga xam ne ñu ngi koy def si jeunes yi pour ñu arrêter di jël gaal bi ngir dem dugg Europe mais mbir mi ba léegi dafay persister récemment rek am na ay sénégalais yoo xam ni arrêté lañ leen ci frontière bi ñu ngi doon dem soxal immigration. Euh, clandestine euh, euh, yow déjà pour yow jàngat bu njëkk lan moo waral phénomène bi saa su ne di gën a bari doole malgré sensibilisation bi nga xam ni ñi ngi koy def malgré solution yi nga xam ni peut-être état bi nee na mi ngi koy daal di indi pour yow lan moo waral mbir mi. bon immigration clandestine phénomène la boo xamante Sénégal bokkul ci yi nga xamante ne moom la épargné parce que problème la boo xamante ne mondial la te loolu waral na ñu organiser ay sommets internationaux yoo xamante ne dañ fay jàngat wàllum euh, clandestin ki euh, immigration clandestine donc loolu du lu bees ci Sénégal yàgg nañ ko gis malgré que nag am na ay sensibilisation ndax tamit euh, àdduna bi ni mu tëddee dafa tëddoo ci ay accord dafa tëdd ci ay coopération bilatérale entre les pays donc loolu dafay imposer askan yi ñu ji ma xam loi yi nga xamante ne moom la ñu tëral entre réew yi ba tax na réewum jàmbur boo fay dugg da nga fa dugg si yoon yi nga xamante ne moom la yoon mayee waaw préparer say document de voyage dem sa ambassade réew ma demande fa li nga xamante ne mooy visa buñ la mayee dugg si réew ma buñ la mayul nga xam ne mayuñu la waaye nag li nga xamante ne moom moo xew léegi ñu koy seetlu lu bari. Mm-hmm, mm-hmm. mooy malgré que immigration mu ngi def ay ravage di jël ay bakkanu doomi aadama mais teewul ba léegi nit ñi ñu ngi wéy di def loolu noonu di jëb jublu immigration clandestine. exactement loolu nag dafa war a mat tax. Mhm. ñu laaj maanaam lan moo xew. Mhm. lii xew nag moom mooy. waaw état yi dañu xaw a fay seen responsabilité parce que bu fekkee da nga am ay ndaw nga am ay ressources naturelles tey ñu oote justice sociale. ñu gis ne sëb jeunesse te yow nga nekk état boo xamante ne réew moo xamante ne tey mën nañoo soixante dix pour cent ay jeunes leen ñooñu war nañ mën a gis seen bopp si doxalinu réew mi suñu garanti leen am xëy parce que de xëy dafay jouer ci dignité doomu aadama dara gënul metti nga nekk jeune yor sa doole yor sa xam-xam mais say parent di la dundal ba ngay am ay trente ans wala jëm kaw yow mën na loo leen dara parce que jàppoo si dara. Mm-hmm. loolu boo koy gis dafay metti rawatina nag ngay gis say parents yoo xamante ne xëy na dinañ am aajo yoo xamante ne mënuñ ko faj. Mm-hmm. te yow it ko faj donc loolay loolu di la animé loolu moom mooy waral déjà parfois ngay gis jën yi di jël yoonu suufi wala sax di jël yoonu géej gi naan dañuy def immigration clandestine li ko waral mooy dañu yëgul seen bopp si réew mi ni nga xamante ne noonu la ñuy séddalee mhm. lii ñu yàlla may si koom mhm. wala boog bu fekkee bokkoo si ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore réew mi bu boobaa ñoom duñ la jox li nga xamante ne mooy li nga yooyoo si réew mi parce que Sénégal tamit quoi qu'on puisse dire ay politique d'emploi am na fi mhm. surtout nag promouvoir li nga xamante ne mooy jeunesse bi waaye loolu ax lu si man ta tamit ax lu si mën a am yi itam ngir moomu dafay jëng toujours jëm si jeunes yi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak nguur kon ku àndul ak nguur dafa mel ni dañ lay fàtte waaye tamit ñuy dund ay jafe-jafe yu métti yoo xamante ne wax dëgg yàlla moom moo leen di pousser ñu ñuy def immigration clandestine bi donte ne nag loolu gëmuñu ne war naa mën a nekk aw lay. Mhm. war naa mën a nekk justification pour di dem si loo xamante ne sa bakkan mën na see rot waaye nag ñoom dañu ñàkk pexe. te vraiment jot na sëg état bi teg ay actes yu leer yoo xamante ne vraiment yu impartial yooyu wane ne jeunes yi kat dinañ leen jox liggéey te ku si nekk li nga yooyoo dinañ la ko jox waaye itam jii ma def si ñoom ñuy xalaat ne maanaam réew mi avant tout et que mën nañoo tekki fii nga xamante ne moom mooy seen biir réew. est-ce que yow bokk nga si ñuy xalaat ne pour ñu peut-être xeex wala wàññi wàllum immigration euh, clandestine dañu war a def euh, euh, visa maanaam ñëpp ñi nga xam ni dañuy dugg bépp réew boo xam ne sénégalais bu fay dem dañu koy laaj visa yow tamit booy dugg si réew mi ñu laaj la visa ñu mun a ñu jàpp ni lu ne mel tamit solution la par rapport ak immigration clandestine comme sa ndaw yi dem ñu gën leen ko yombalal jàpp nga ne est-ce que solution la tamit waa euh, principe bi nga xamante ne mooy réciprocité dañ ko war a respecter ci wàllum les relations diplomatiques Sénégal dafa séqa ay réew yu bari ay relations diplomatiques donc nag réew yooyu euh, suñu diggante ak ñoom dafay tegu si li nga xamante ne mooy nawlante kon réew yooyu lépp loo xamante ne dañu koy imposer suñu bëggee dugg seen réew ñun itam am nañ sañ-sañ imposer ko ñoom seeni population ak seeni citoyen bu fekkee dañu bëgg a ñëw suñum réew parce que tamit loolu moom mooy li ñuy sagal. te itam loolu moom mooy tax ñu wane ne ñun ñoo moom suñu bopp loolu mën na jouer si réduire li nga xamante ne mooy émigration clandestine parce que tamit buñ fàtte ni ñun dañu am benn histoire boo xamante ne bu jéggi dayo la mooy Sénégal dafa bokkoon si réew yi nga xamante ne dañ leen coloniser woon mm-hmm. te ñi ñu coloniser ñoom ñoo sàcc suñu alal yóbbu ko kon tamit bu fekkee ñoom gis nañ ne suñu ndaw ñu ngi bàyyi suñu réew di ñëw seeni réew nañ jàpp ni seen alal la ñuy jëlse waaye itam nañ jàpp ne dañu toll si àdduna boo xamante ne kenn mënul dem sans sa moroom mhm. tubaab yi mënuñ dem sans ñun ñun mënuñ dem sans ñoom kon nag immigration boobu certes war na nekk tamit lu ñu organiser waaye tamit euh, si kaw ñu respecté tamit li nga xamante ne mooy droit international waaye tamit respecté li nga xamante ne mooy ax ak yelleefu nit si bëgg fii mu bëgg a dem mu dem fa saa mu am jafe-jafe kon képp ku bëgg a dem réewum jàmbur bu fekkee tamit maanaam lii ñuy laaj matal nga ka waruñ laa mën a téere réew moomu léegi nag li ñu gis parfois ay affaire la yoo xamante ne si wàllum racisme la gën a aju ko si wàllum doxal li nga xamante ne moom mooy yoon. Mm-hmm. tubaab yi itam bët bi ñu xoole mooy dañu jàpp ne ñun xëy na amuñu dara et ñun ut see la ñuy def. waaye boo xoolee suñu réew itam ñoom jàpp naa ne seen teranga ji ñu am yëpp ñoom fii lañ ko jëlee suñuy réew kon tamit respect war na mën a dox suñu diggante waaye tamit mën nañ organiser secteur boobu ba nga xamante ne kenn du si gaañu waaye tamit lii ëpp solo si man mooy suñuy gouvernant ñu jéem liggéey suñu dëkk ba nga xamante ne ñun moom bu ñuy soxlaal tamit bitim réew da di nekk mbir yoo xamante ne xëy na lu manul ñàkk waaye nag Sénégal ak koom gi nga xamante ne feeñ na fi lu mel ni pétrole ak gaz ak zircon jàpp naa ne loolu bu fekkee liggéey nañ si bu baax a baax def si ay politique yu baax gëm naa ne loolu dinañu doy ñun waa réew mi te bu boobaa duñ soxlaati génn di dem bitim réew wala bu ñuy soxlaa génn dem itam Hmm. ay mbir yu sew sew lay doon mais pas. pour uti liggéey yoo xamante ne peut mën nañoo tekki fii te doon dem bitim réew. léegi ci ci solution yi ba léegi euh, gis nga état Sénégal doon na euh, génne ay financement am kuréel yu fi nekk comme ay ANPEJ gis nga dégg nga ay DER euh, jël ay financement def ko ci kuréel yooyu pour jox ko jeunes pour ñu am liggéey est-ce que yow jàpp nga ni ANPEJ ak DER yooyu fi ñu leen doon xaar est-ce que ñu nga fa. bon constat boobu nga wala sax question bi nga xamante ne mu nga posé question bu am solo la. Mhm. waaye tamit yaakaar naa euh, créer lu mel noonu pour dimbali jeunes yi wax dëgg yàlla lu am solo la waaye toujours jafe-jafe bi fii muy am rek mooy li may wax mbir mi dafay demee côté. boo xoolee DER création bi nga ko créé ngir employé jeunes yi wala sax ngir dimbali leen suñu am liggéey bu ko defee yaxantu loolu ñuy yaxantu buñ paree delloo la ñu leboon loolu lu am solo la principe bu am solo la boo xam mën a def dara lu dul rafetlu ko waaye nag jéng ji mu jéng tax na sax si ñii mu jëngoon jëm am na si ñoo xamante ne bari nañ ñun si soulever comme ay question ak ay problème ndax kat jàpp nañ ne euh, mbir mi ni mu waroon doxee dëkk doxewul noonu parce que tamit ay financement yoo xamante ne financement yu partial la ku bokkul si jeunesse APR duñ la jox euh, donc loolu seetlu nañ ko si mbir mi dem na sax ba nit ñu commencé ko ruumandaat ñu commencé sax léegi di jox ñeneen ñoo xamante ne bokkul foofu waaye ni mu wareen demee dëgg demewul noonu parce que tellement que politique dafay occuper mbir mi donc nag faaw ñu dépolitiser mbir mi génn ci politique carrément boo ko defee jiital li nga xamante ne moom mooy suñu wàllum réew jiital Sénégal ci lépp ku yeeyoo mbir mi ñu jox la ko bu ko defee kooku it mu am fullaay fayda liggéey li ñu ko lebal ba paree mu delloo ñun nag jàpp nañ ne DER mu ngi liggéey certes waaye war naa gën a mën a lu gën a defaraat mbir mi ba nga xamante ne sénégalais bu si nekk dina si yëg boppam ndax kat li ñu ko jox si ay financement ak si alal ak tamit li ñu ko garantil jàpp naa li mu liggéey war naa weesu fii kon sénégalais nag yu bari gisuñ seen bopp si liggéey boobu te den si war a gis seen bopp. beneen question d'actualité Mansour Ndiaye nga xam ne actuellement euh, ñëpp moom la ñuy waxtaane di installation quatorzième euh, législature bi euh, yow quatorzième législature bi naka nga bésu installation bi ni mu demee ak li ci am yëpp. waaw euh, gis nañ fa loo xamante ne wax dëgg yàlla mënoon naa ñàkk. Mhm. mënoon naa ñàkk mais nag dafa am loo xamante ne moom moo ñu koy moo ñu moo ñu yóbbee loolu. Mhm. parce que dafa am ay question yoo xamante ne waroon nañ ko régler avant loolu. boo xoolee manquement yi ñu seetlu keroog si jouru vote li nga xamante ne mooy président assemblée. loolu jegewul ci député yi mais ñay saytu assemblée la. Mhm. donc ñoom ñoom ñoo ko waroon préparer à l'avant balaa ñuy egsi ci foofu noonu. côté bulletin yi voilà. voilà bulletin yi et ak lépp lu jëm ci wàllum vote yi rek. beneen bi dañu nekkoon ci benn vide juridique boo xamante ni itam réglé ñu question boobu donc ci mu jëm ci wàllum ministre yi nga xamante ne seen poste dafa incompatible ak nekk li nga xamante ne moom mooy député waaw loolu nag tranché ñu ci ba agsi foofu ñu nekk ci benn impasse. loolu lépp jàpp naa ne bi ñu agsee foofu li waroon def mooy privilège li nga xam te ne mooy euh, dialogue waxtaan malheureusement nag loolu mu jëwul am après gis ngeen fi mu mujj si ay forcing kon lii am ku noonu keroog maanaam warul woon a bett kenn warul bett kenn parce que la woon woon ni na Sénégal dañu jóge si benn étape ñëw si benn étape dañu jóge si assemblée boo xamante ne majorité absolue écrasante moom moo fa nekkoon. lu mu bëgg a jàllale da jàllale waaye nag bii nag moom égalité de forces la kon kenn mënul forcer dara mais malheureusement keroog liy xew tamit jaay doole am na si d'une manière mais jàpp naa ne mënoon nañoo weesu foofu noonu mënoon nañoo xool beneen alternative boo xamante ne euh, dina leen may ñu génne si situation boobu sans ñu fay indi waa gendarmerie ñuy intervenir ñuy voter. par force nga xamante ne jàpp naa ne président assemblée moom sax ni nga ko falee. Mhm. wax dëgg yàlla moom loolu war na kaan na xari parce que lii moom c'est une première muy am ci Sénégal certes 1962 amoon na fa. Mhm. mais ci biir hémicycle bi gendarme yi duggun foon ci jamono jooju. kon nag jàpp naa ne li a naka nga gisee tabb gi ñu tabb euh, Amadou euh, Mame Diop docteur naka nga ko gisee Mansour. bon xam naa ne tab gi nga tab tabb daf ma bett comme ni mu bettee Sénégalais parce que wax dëgg yàlla euh, moom amul woon benn envergure nationale kenn daaw ko dégg fenn keroog jàpp naa ne moom mooy premier bis bi nga xamante ne Sénégalais yu bari si lañ ko xam kon nag jàpp naa ne lii tax ñu tànn ko itam xëy na euh, peut-être compétence la wala tamit xëy na benn favoritisme mun ko defal parce que tamit si ma Macky sàll mooy képp koo xamante ne gagné sa mairie vraiment doo am benn poste bi. comme nag moom yàgg naa gagné foofu depuis 2014 kon si logique gu Macky xëy na yayoo na ko waaye tamit ñun duñ ko mën a juger tant que gisul ay actam à l'avenir kon ñu ngi koy seetaan d'ici deux ans yi nga xamante ne moom lay jiite assemblée bi maanaam moom ba xam dafay wane compétence am ba xam dafay wane xam-xamam wala dafay préféré nekk tamit comme ni nga xamante ne loolu la ko benn si député yi muy Guy Marius waxee un président fantoche boo xamante ne dafay nekk rek si loxoy président de la république lu mu bëgg mu jàll mu jàll. naka nga gisee euh, réaction bu Aminata Touré par rapport ak euh, bi ñu tabbee docteur Amadou maam Diop gis nga ni fi ñu toll nii génn na euh, presque mën nañ ko jàppee comme opposant ban jàngat nga ci am est-ce que jàpp nga ni réaction bu Aminata Touré c'est tout à fait normal waaw wala déet. bon c'est tout à fait normal si koo xamante ne vraiment moom moo nekkoon tête de bu coalition Benno Bokk Yaakaar. sillonné Sénégal gépp quarante cinq département yëpp vraiment da ci coono am si yaakaar bu baax a baax itam ñi nga xamante ne ñoom la jiite woon ñoom ñëpp amoon si yaakaar donc bu ñëwee gis ne moom li ñu ko def genre coup d'état la itam dina am lu ko naqari donc loolu rek moom moo mën a nekk réaction am mais jàpp naa ne moom mënoon naa jàngat bu baax a baax a baax si début bi li ñu ko defoon en deux mille dix neuf parce que ku xool Mimi en ni moom leen chargé woon koo mm-hmm. xamante ne moom moo fi nekk bu sa Seck defee sorti mu génn tontu. xeex ak moom. Mm-hmm. voilà di xeex moom donc loolu si leen jógee présidentiel weesu président de la République wàccee ko jël postam jox ko Idrissa Seck ma nga xamante ne moom la doon jàmmaaro donc loolu humiliation la ñu ñëwati si législative yi fu Ousmane Sonko defee sorti mii mi moom mooy génn tontu ko waaye itam ñu jàpp ne mii xëy na moom comme nekkoon na premier ministre comme nekkoon na itam jàppoon nañ ne mii mi mënu fi jiite leneen lu dul ab institution kon ñi ñëpp doon nañ séntu ne candidat Benno Bokk Yaakaar si présidence assemblée mi lay doon kon Macky Sall bu ñëwee def li itam dañuy jàpp ne Mimi réaction yi mu am lu lu lu jaadu la lu yenu maanaa la kon dëgg moom xëy na dafa jàngul jàngatul si lii weesu. Hmm. moom moo tax lii dalaat moo tax kon dañuy jàpp rek réaction bi mu am lu normal la en tant que leader mais aussi en tant que koo xamante ne dafa am position ferme si. Euh, sujet bi nga xamante ne mooy troisième candidature. moom mu fas ne taxaw teem sax xeex euh, troisième candidature bu Macky Sall. loolu principe la wax dëgg yàlla parce que tamit euh, ñoom bokkoon nañ si ñi nga xamante ne loolu leen yàggoon xeex kon miimu bu fekkee dafa jàpp si loolu ba tey wax dëgg yàlla dañuy mën a wax ne rek principe la si moom. parce que am na tamit ñoo xamante ne ñu ngi ko doon xeex bokk ak ñoom benn parti bokk ak ñoom benn coalition mais Mimi nag wax dëgg yàlla loolu ku ko xam-xam ne loolu changé aussi te loolu la yàgg a wax donc tamit xëy na peut-être loolu moom moo tax mu nekk ñu sacrifié te parce que tamit président Macky Sall ku xool ay doxalinam képp koo xamante ne am nga ambition rek daf lay te loolu remaniement bu mujj bi nga xamante ne moom la defoon dàq ay ministres yi nga xamante ne ñëpp jàpp nañ ne ñii ñu mën a remplacer lañ Macky Sall mm-hmm. wala sax mën nañ nekk numéro doowu Macky Sall mm-hmm. donc loolu lu ñu seetlu la te Mimi si ñooñu la bokk loolu nag xëy na position la bu mu am te démb itam si à entretien bi mu am ak tamit TV5 mm-hmm. euh, euh, bu APR Benno Bokk Yaakaar wala Macky Sall wala Marème Faye Sall mooy fokkot ci euh, député bi nga xamante na ko dañu bëgg a euh, foqat ci euh, député bi si moom loo si xalaat. bon même buñ ko jiimee foqati par force itam joxuñ ko mandat boobu mandat boobu sénégalais yi ñoom ñoo ko jox. Hmm. donc buñ ko defee def nañ lu illégal waaye tamit dañuy wax ne ñoom yi nee na parce que tamit même bu mu foqatee euh, poste député bi si moom maanaam kan moo koy remplacer parce que ñoom déjà amuñu liste bi nga xamante mooy liste supplément suppléant. Hmm. kon bu boobaa kan mooy remplacer Mimi jàpp naa ne kon kim ne li ñu mën a def mooy jiima naxante ak moom parce que comme ba tey ñoom ñoo bokki mbuus comme ni ko waxe kon li ma jàpp ne moom moo war a am boo ñu jiima waxtaan ak ñoom parce que tamit Mimi gëm naa ne position bi muy am si biir assemblée nationale ginnaaw li ñu ko def dina uutee tey bu nga faloon présidente assemblée position bi mu am. Mm-hmm. donc xëy na ñoom dañu njort ne bu duggee assemblée dina defanteek ñoom wala itam dina fragiliser liggéey wala dina leen yàqal si lu bari. loolu xëy na moom moo tax ñuy def yenn a yi waaye ax lu si manti am itam mandat bi mi mi am Sénégalais yi ñoo ko jox ñoom itam buñ ko jiimee jaay doole ba fuxaati loolu ñu ngi si illégalité parce que déjà duñ mën a indi keneen koo xamante ne moom moo koy remplacer donc dans ce cas lii ñu bañ ak li ñu bëgg benn lay doon kon dama jàpp ne deux ans la assemblée bi di diire mii mi Sénégalais yi jox nañ ko euh, mandat nañ ko bàyyi mu liggéey comme bon lui semble bu ko defee li si des ñoom mën nañ ko régler à à l'interne léegi yow est-ce que Mansour Ndiaye bokk nga ci ñuy xaar euh, lu bari ci assemblée bu bees bi nga xam ne sax mën nañ ko jàppee en fait une assemblée de rupture parce que nombre conséquent de députés bi nga xam ni ñu nekkee ci ku jëkk politique bi am nañ ko xaar nga lu bari si ñoom surtout bi nga gisee euh, keroog euh, taxawaayu Barthélémy Dias ñu bari di ko ñaawlu taxawaayu kile di Guy Marius Sagna ñu bari di ko ñaawlu est-ce que yow am nga déception wala amoo déception déception ci mbir mi. très honnêtement awma déception parce que tamit euh, taxawaay yooyu dafa am lu ko jur. Mhm. ñoom jógun jóg-jóg rek am yee réaction yooyu noonu donc am na lu lu lu sabab mbir mi kon nag mbir bu ñu koy jàngat li nga xamante ne moo ko sabab mais duñ ñëw commencé di mi ni mu demee mais dañuy wax li nga xamante ne moom moo sabab mbir mi. kon man assemblée nationale bi gëm naa ne assemblée de rupture lay doon loolu laay xaar si ñoom parce que xaaruma ñu def lu yées li nga xamante ne ñii leen weesu moom leen def parce que sénégalais itam quoi ñu ngi commencé woon a am ñàkk am yaakaar ci assemblée nationale depuis douzième législature boobu la sénégale yi commencé suur assemblée nationale treizième législature ñëw la gën a pire kon nag quatorzième législature amoon droit def loo xamante ne di leen ci xeebe rawatina nag ñu ñëw ci contexte boo xamante ne sénégalais yi euh, dañuy dañu ànd ak fugg boo xamante ne rawatina jeunes yi dañu bëgg ñi leen di représenter ñu nekk ñoo xamante ne dañuy am euh, mérite représenter leen ci assemblée nationale. parce que li ñu fi yàggoon a gis mooy lu buur bëgg dafay jàll assemblée mm. facilement ay vote sans débat mm-hmm. léegi nag gëm nañ ne débat parlementaire bi dina gën a élevé wu xam-xam dina gën a feeñ euh, askan wi euh, ña nga xamante ni ñoom ñoo leen représenté assemblée nationale dinañ gën a yëkkati wala dinañ gën a féetal kanam intérêt réew mi ci seen i intérêt personnel askan wi nag tollu na foo xamante ne dafay observé donc si lii nga xamante ne moom moo tax ñu votel député yi ba nga xamante ne tey doole ji tolloo na bu fekkee gis nañ ni ñi ñu voté la nekkul ci loolu ñoom it am nañ fullay sanctionné leen comme ni ñu sanctionné coalition Benno Bokk Yaakaar Euh, tey ji euh, Mansour ñuy xaar tamit euh, lu soxal gouvernement bu yees en tout cas gouvernement bu yees bi sax yàgg nañ ko xaar depuis lendemain élection locale yi tey ji mu mel ni nag Macky taxaw na tem ngir taxawal gouvernement bu bees en tant que sénégalais est-ce que yow yaa ngi xaar lu bari ci gouvernement bu bees boobu jàpp naa ne gouvernement bu bees bi waroon naa am bu yàgg te xëy na sax ñàkk amam moo ñu indi situation bi ñu nekk tey te it moo jur la nga xamante ne moom moo xew keroog lundi ci assemblée nationale. xëy na président Macky Sall dafa jàppoon ne bu supprimer poste premier ministre dina gën a mën a coordonner l'action du gouvernement waaye jàpp naa ne lii tax mu delluwaat si ginnaaw xëy na ne li mu si doon séntu amu ko si kon jàpp naa ne décision bu mu jëloon wala sax décret bu mu jëloon ba supprimer poste premier ministre tâtonnement moom moo taxoon euh, gouvernement bi ñuy xaar nag wala bii di waaj ñëw. soxlaawul mu nekk un gouvernement politique gouvernement technocrate lañ soxlaa boo xamante ne dina veiller si teggil askan wi njàqare yi muy dund gis nga Sénégal fi ñu toll léegi. Mm, mbënd mi occupé na ay zones yu bari. ñu bari gis nga léegi maanaam seen wàllum situation économique ni mu delloo ginnaaw gis nga ñàkk gi nga xamante ne moom moo xew si réew mi ak ndóol bi prix denrées première nécessité yu yokk. Mm. Sénégalais yi li ñuy xaar jamono ji si gouvernement bi di ñëw moom mooy ku leen saafara seen i jafe-jafe mais pas gouvernement boo xamante ne dafay ñëw rek nekk continuité si li nga xamante ne moom moo fi amoon loolu nag dafa laaj courage dafa laaj président de la république laaj tamit PM bi nga xamante ne moom mooy ñëw ñu jiital intérêt réew mi si intérêt parti yi ak intérêt famille yi ñu falal ñoo xamante ne vraiment ay liggéeykat lañ parce que Sénégal fi mu toll soxlaawu lu dul ko ko liggéey ak itam lu dul ko génnee askan wi situation bi nga xamante ne mooy situation précaire bi ñu nekk parce que itam bu ñu fàtte ne ñaari benn at rek moom moo dese président de la République pour mu dem yoonam. waaw kon nag jàpp naa ne war na fee mën a liggéey loo xamante ne dina ko may mu génne par la grande porte. Euh, ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau euh, dalal Mansour Ndiaye nekk membre bu commission communication bu l'Alliance nationale pour la cause palestinienne responsable communication du mouvement des jeunes associés musulmans euh, tey jii beneen question boo xam ne occupé na actualité bi di faatuk Alioune Badara Ndao imam Alioune Badara Ndao nekk imam bi nga xam ne gis nga liñ ko fi jiiñoon tuumaal ko fi wàllum terrorisme jàpp ko tëj ko toroxal ko torturer ko génnewaat ko pratiquement mu jëlee ñàkkum wér ci kaso bi parce que nee na lañ ko doon teg ci kaso bi métti na trop tey jii mu génn àdduna yow lan nga ñu mën a wax ci décès wu imam Alioune Badara ndaw ak li mu doon représenter ci diine ak l'islam surtout waaw balaa may avancé foofu rek nga baal ma ma jaale njabootu imam Alioune Badara Ndao jaale ko képp ku di nitu diine si Sénégal ak ñi nga xamante ne sax amuñu diine di ko jaale askanu Sénégal yi parce que Imam Ndao nekkoon na koo xamante ne jàmbaari lislaam la woon waaye itam nekkoon na koo xamante ne jàmbaare si réew mi kon ak demam yaakaar naa sénégalais yëpp gis nañ ni mu leen naxaree jooy nañ ko bu baax a baax te xam ne itam manqué nañu lool. bu dee nag lu jëm si wàllum faatoom ax itam sax lu jiitu wàllum faatu gi mooy li ñu ko tuumaal ba jàpp ko jàpp naa ne ñi nga xamante ne ñoom ñu ko tuumaaloon yàq deram ci àdduna bi présenté que àdduna comme un terroriste koo xamante ne reykatu nit la ñooñu ñoo xëyaat un bon jour seetalaat deram nekk li ñu doon toppee defoo ci dara waaye nag fi nga xamante ne foofu la nekkoon am na nu mu fa doon dundee te bi mu génnee itam nettali ne ni mu fa doon dundee te it naxoon na ne moom avant muy dugg foofu noonu benn feebar la amoon bu ko daa dikkal annuellement muy sibaru te yàlla dogal na ci biir incarcération bi masu ko faa benn yoon. kon jàpp nañ ne li nga xamante ne moom moo ko dal ba mu faatu foofu la ko jëlee xëy na torture yi nga xamante ne moom moo moom lañ ko fa doon def. Mm-hmm. loolu moom moo dañul si yaram wi te itam loolu moom moo ko jàpp ba yóbbu ko moo tax kon nii mu faatoo wax dëgg yàlla ginnaaw bu ñu gëmee ndogalu yàlla te ne yàlla lu mu def rek moom moo gën xëy na am na nu ko sabab loolu nag mënuñ tere kenn mu ñaaw ci njort parce que tamit xelu doomu aadama kenn mënu ko kaste kenn mënu kaa tëj. comme gis nañ ne fee yi kenn mënu leen a tey nag ñu ñàkk ñu ñaaw su njort waaye tamit ginnaaw ba moom bi mu génnee àdduna wala sax avant muy génn àdduna neewoon na baal na ñëpp ñun dañuy jël mbir moomu yëpp teg ci yi yàlla subhaanahu wa taala te di ko ñaanal yàlla waaye tamit di xamal ne askanu Sénégal ñàkk nañ koo xamante ne c'est un imam c'est un koo xamante ne point focal la woon ci développement économique parce que man mi bokkoon naa ci ñi nga ne doon nañ teew ci jataay yi nga xamante ne dañ ko doon déglu mais vraiment ku déglu imam xam ne nekkul rek koo xamante ne dafa yem si diine ji waaye lépp lu jëm si wàllum xeex pauvreté ak wàllum koom euh, keroog wane na que si plan développement local bi nga xamante ne moom la doon développé fekk keroog si audience boobu noonu te jàpp naa ne foofu la ñuy xaar imam te gëm naa ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jàppoon tëkk mënoon nañoo jariñu si moom au lieu nekk fii di ko terroriser ak di ko tuumaal yoo xamante ne dara amu si dara amu si parce que ñoom ñoo xëyaat seetal ko si lépp lu ñu ko doon tuuma kon Sénégal ñàkk na umma islamiya bi ñàkk na waaye tamit jàpp nañ ne comme ñoom ñoom ñoo ko jàppoon tëj ko ba dëddu la ñi nga xamante ne ñoom ñoo faree foofu nañ téye seen làmmañ si moom te bàyyi ko mu noppalu ndax kat yaa ngi gis ay kàddu yu jib fan yi mhm. di waxaat si moom si ñoo xamante ne si ñi fa ñu ngi fare si ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jàppoon façon wax ju ñaaw ju ne ñu koy teg si ab deram te tamit deru doomu aadama lu ñu sàmm buy dund ak bu faatoo kon nag comme yàlla ñun ñi muccal nañu si lor imaam ndaw si suñu làmmañ ak si suñu loxo kon ñi ko doon mbugal itam vraiment buñ ko mënul ñaanal yàlla nañ seen làmmañ si moom ñu gis ni ci faatu imam Alioune Badara ndaw ay Karim Gueye yëkkati ay kàddu ak euh, Cheikh Oumar Diagne euh, jàpp ni état bi loxoom setul ci faatuk imam Alioune Badara Ndao euh, fi ñu toll ni ñoom ñu ngi ci kaso bi ban jàngat nga ci am waaw jàpp naa ne lii Abdou Karim Gueye waa Cheikh Omar Diagne loolu la njabootu imam Alioune Badara Ndao wax te ba léegi kenn jëliwu leen kon dama jàpp ne état bi tamit si ay tappale la nekk parce que bu fekkee ñoom dañ leen jàpp rek parce que jàpp nañ ne état bi euh, xëy na lii ko dal ñoom ñoo ko ko teg loolu sénégalais yu bari noonu la ñuy xalaate xëy na nag kii da xalaat gëm ko wax ko kii xalaat gëm ko di ko junj kii xalaat gëm ko te waxu ko mais ax lu si man ci am ñaaw njotto googu dafay am jàpp naa ne rek si dëj lañ nekk kon état Sénégal war nañoo mën a am kersa itam di bañ a topp kaa yooyu bu mu sës parce que tamit nit dina toll foo xamante ne dina wax lu mu maîtriser dina wax lu mu maîtriser wul mais de toute façon nañu xool contexte yi parce que tamit si dëj leen nekk vraiment war nañ ñoo mën a épargner si di jàpp ay nit ñoo xamante ne seen xalaat rek leen wax kon mënoon nañoo bañ a topp kaa yooyu noonu bu muy sës te li ñuy wax état Sénégal di ko ñaax état Sénégal mooy nañu bàyyi ñooñu ñu dellu si seen njaboot parce que ñu nekk du seen place. mais mais jàppoo ni tamit parfois euh, yenn yi boo koy wax war nga cee am preuve comme ça di tuumaal njiitu réew ci yenn yi est-ce que gisoo ni tamit parfois dañuy wax lu l'islam de conduite bi ñu jàngal mm-hmm. mooy lu ñuy wax na di loo xamante ne lu óor lay doon mm-hmm. nit ci nag nit faatoo nga ne diw moo rey loolu dafay laaj nga indi ay firnde yuy wane ne diw moo rey mais jàpp naa ne nag état mënoon naa bañ a yàkkamti si mbir mi parce que ñoom ku xool seen déclaration yi nga xamante ne moom la ñu def suite si dese imam ndaw ñoom neewoon nañ après dëj bi dinañ gën a indi ay leeral dinañ gën a indiwaat ay révélation kon jàpp naa ne kon yàkkamti mënoon naa bañ am si mbir mi ñu may leen temps ginnaaw dëj bi ñoom bu boobaa xëy na dinañ wax li ñu xam waaye nag ñëw jàpp leen si vraiment contexte boo xamante ne ñoom ñu ngi nekk si naxaat Sénégal nekk si naxaat jàpp naa ne détail yooyu noonu itam waroon nañ see bañ a dugg parce que tamit quoi qu'on puisse dire réew mi fi mu toll nii mooy léegi jàpp fi nit dafa yomb trop. Hmm. te it askan wi toujours ñu ngi nekk ci sentiment wu maanaam loo man a def moo xam rëy na moo xam rëyul mën nañ laa jàpp parce que gis nañ koo xamante ne jàpp nañ parce que dafa partagé ab xamante ne ay reetaan loo xamante ni umu la ñu jàpp ko ci te teguñ ko fen kon jàpp naa ne daal détails yooyu noonu vraiment état moom ak ay détails te vraiment war naa moytandiku di indi loo xamante ne dafay tax population bi di révolter. Euh, ngay dégg tamit si réew mi ñuy wax affaire force spéciale ñu bëri sax comprendre ruñ mais am na ñoo xam ne actuellement ñi ngi ci kaso bi ndax force spéciale boobule ab mouvement boo xam ne en tout cas dañoo taxaw pour saboter wala pour jéem fee jëlee euh, nguur gi nu mu gën a gaawee ci mbir moo xamante ni euh, jaarul yoon yow boo déggee force spéciale fii ci Sénégal ñu koy wax di ko gëm wala doo ko gëm. du début à ay tappale laa ko jàppe parce que keroog dañuy def euh, li nga xamante ne mooy rassemblement bu sept bu huit juin bi jàpp nañ benn waaye ne mu ngi bokk si ñi nga xamante ne way fippu yi la. Mm-hmm. mais nee nañ ah yeneen trente personnes donc jàpp nañ ko ko ana yeneen trente yi. c'est-à-dire parfois dañu fooy loo xamante ne vraiment man dama jàpp ne dañu fooy xelu nit ñi wala dañuy jàpp ne askan wi duñu xalaat. Mm-hmm. ñooñu ñu jàpp noonu nañ leen libéré bàyyi leen ñu dem seen i kër ñun dañu gëm ne li leen ay tappale kese la du début Sénégal gii nii benn boppale kenn mënu kaa xar ñaar ñii fi dëkk si réew mi leen bokk fii la seen teraanga nekk fii la seen lépp nekk kon amuñu benn intérêt si di yàq réew mi wala di yàq loo xamante ne lu mbooloo moom la kon dama jàpp ne du début à loolu ay tappale lañ leen bàyyi ñu dem seen kër foofu ñu nekk du seen. gëmoo daal ay mbirum force spéciale. non vraiment lu ñuy dégg la bitim réew parce que ñun bu nee force spéciale xam nañ fi mu toll. Mhm. kon bu fekkee dañuy bëgg gëmloo ne ñooñu jàpp noonu itam ay ay ay di leen présenter comme ay ay terroristes ay forces spéciales. vraiment ñun Sénégal xamuñu lool parce que dossier boobu yàgg nañ ko faw xowee mhm. jàpp si ay nit toroxal leen ñetti at génne leen ne leen defu leen dara loolu nag ñu yàgg a fooyee moom la askan wi miin te tamit ab buur surtout kilifa bu fekkee dem nañ ba miin loo xamante ne si yow ay dëgg ay wax wax lu dul dëgg kon bis boo demee ba jàpp ne sax yow wax nga dëgg askanu boobaa dañ lay fooy di la reetaan te jàpp naa ne foofu lañ toll loolu man dama gën ay tappale kon nañ la ñu dem seen yoon. ak liberté d'expression tey boo si doon euh, indi ab jàngat euh, ci tolluwaay bi fii si senegal looy wax Mansour. waaw Sénégal rek wax dëgg yàlla am na foo xamante ne tolloon nañ fa si wàllum démocratie ak liberté surtout nag. Euh, nga xamante ne président bi nga xamante ne moom moo weesu liggéey na si lu amaa amaam solo mais nag dañu jàpp ne suñu acquis démocratique yooyu dafa commencé dellu ginnaaw depuis euh, régime bi taxaw fii depuis 2012 à léegi parce que ñu ngi fiy jàpp ay nit te jàppewuñu leen lu dul rek ne vraiment euh, dañu joxe seen xalaat wala wala dañ leen di jàpp parce que xëy na seen bëgg-bëgg juyoona ak bëgg-bëggu nguur. kon jàpp na ne démocratie dafa gën a dellu ginnaaw si Sénégal parce que fii li ñu fiy tere si ay manifestation dafa bari lii fii nit di joxe xalaatam ñu jàpp ko dafa bari te jàpp naa ne loolu ay acquis démocratique la yoon te Sénégal waru si dellu ginnaaw moo tax ki nga xamante ne moom mooy jàppaate dafa war a bàyyi jàppaate bi ki nga xamante ne moom moo ëpp doole dafa war a bàyyi dóore bi te Sénégal foofu leen toll toll nañ foo xamante ne léegi dañuy toroxal askan wi di toroxal néew ji doole ji te kii kay def moom mooy état te jàpp naa ne loolu warul am voilà peut-être euh, laaj bu mujj ma Mansour Ndiaye ñu koy jagleel euh, sànq sax junj juñu nga ko ci biir waxtaan bi. maanaam mooy euh, cherté inflation euh, maanaam prix yëpp ñëw yéeg dañ daan wax sax euh, denrée de première nécessité yi yokku na mais fi ñu toll nii nekkatul denrée de première nécessité marché bi pratiquement lépp lu ñu fay jënd dafa daal di euh, yokk déjà yow ban jàngat nga am ci mbir moomu bon loolu jàpp naa ne responsabilité état bi la parce que tamit euh, réew la moo xamante ne euh, vraiment euh, li fi nekk si koom bari na donc ñun lii ñuy jëndi lu si bari war nañ kaa mën a bay fii si réew mi ba nga xamante ne yenn taxes yi ñu siy teg nga xamante ne dañ koy jëlee bitim réew taxes yooyu mënoon naa tegg ko bu fekkee loolu ñu ngi koy bay fii di ko dundee kon premier fois en premier lieu li ñu waroon def mooy di bay di dunde loolu tànk que facilité wuñu ko. suñu dund bu ajoo wala li ëpp suñu dund bu ajoo bitim réew situation bii nii duñ si mën a jógee ñaare bi mooy état di veiller bu baax suñuy respecter li nga xamante ne moom mooy prix yi parce que keroog li nga xamante ne moom moo am sax rawatina si prix soble bi jéggi na dayoo. Mhm. saako soble ku xamoon ne trois mille cinq cent lay jar saako soble dem bay jar cinquante cinq mille si yenn zone yi loolu jéggi na dayoo. kon loolu dun bàyyi ba mu am ba pare jii jiima ut lan mooy solution bi mais dañu war a def ay politique yoo xamante ne moom mooy tax prix yi ñu maintenir te kenn bañ kaa violé beneen bi itam dund gi ni mu seere jéggi na dayoo président Macky Sall bokkoon na si li mu ñu diggoon en 2012 buñ ko falee dina wàññi prix yi certes góorlu na si bu baax ndax kat réglé woon na problème mu courant bi waaye tamit réglé woon na problème mu denrées premières waaye ñu dem bu jëmmi jamono ñu gis na nag loolu noonu mu ngi commencé sooxe jàpp naa ne loolu sénégalais yi duñ ko kapaal kon nag dafa war a liggéey ngir prix yi wàññeeku parce que tamit sénégalais fi ñu toll si mere ndax situation politique bi fi mu toll loolu situation économique et sociale bi nag bu si ñëree naree ñëw toll ko su damay jàpp ne kon bu boobaa dina gën a am jafe-jafe te réew mi nañuy fexe nañuy fexe di def loo xamante vraiment dina tax askan wi xelam day gën dal mais pas loo xamante dafay yëngal xolu askan wi. est-ce que yéen pare pare ngeen pour organiser peut-être marche pour yëglu daal di fësal ne euh, actuellement sénégalais yi sonn nañ mënatuñoo dékk situation bi les revenus sont faibles les prix sont chers est-ce que yéen peut-être pare ngeen pour organiser benn euh, marche sax pour loolu. bu ko jaree dinañ ko def parce que tamit euh, situation boobu ñun ñoo koy dundul loolu moo tax xamul méttiwaay bi mais tamit askan bi bés bu ba fas yéenee wàcc si terrain bi nag wàcc si euh, tali bi ne dañuy marche ne leen bàyyi ñu marche parce que la ñuy def c'est légitime yoon moom moo leen ko may tey li ñuy dund ñoom ñoo ko xam kon jàpp naa ne nag état Sénégal balaa ñuy agsi sax situation boobu noonu war ñoo mën a góorgóorlu ba dimbali askan wi génne leen situation précaire bi ñu nekk moo gën ñu ñuy àgg ay marche wala di ñu dégg si yeneen. voilà Mansour Ndiaye euh, waxtu bi dab nañu ma bàyyi la nga tàggatoog auditeurs yi. jërëjëf soxna Ndeye Comba vraiment kontaan nañ si dalal bi nga ñu dalal di am yaakaar ne li ñu fi wax yépp euh, njëriñu askan bi la. Mm-hmm. kon di jéggalu rek say auditeurs di leen wax ne rek lu jub si suñu kàddu nañ ko sante borom bi subxanahu wa taala lu si dëng itam nañ xam ne rek suñu matadi la ñun en tant doomu aadama ndax ñaanuñ yàlla itam wax fi lu ñuy xeebe. kon ñu ngi am mbégte bu baax di sant di la ci dalal. jërëjëf Mansour ñu ngi koy remercier bu baax nekk membre euh, bu commission communication bu alliance nationale pour la cause palestinienne responsable communication euh, bu mouvement des jeunes associés musulmans ñu doon waxtaanee lépp lu soxal actualité politique ak sociale réew mi kon ñu ngi koy remercie ci disponibilité am di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 heures ak Mamadou Diawo Diallo kon ci cabine technique bi ba samedi prochain ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf